la la la la Euh, di nuyu waa dëkk bi kër mbay Seye def naa bi mooy ñaareel bi ñu ñëw fi pour xo inaugurer si teen bi alhamdulilah da ngay sant dañuy sant yàlla euh, ci loolu noonu mu ñu xéwalal muy teen bi nga xam ne ñu ngi ko doon sàkku mu nekk xéwalu ndox nga xam ne nit munu koo ñàkk ci anam bu mënti doon nit dafay soxla ndox ndox moomu nag ñu koy maye bokk ci benn association bu tudd Eau Pain et Sourire nekk suñu ay partenaires mu mel ni nit ñi lañuy dimbali mais suñu bopp la ñuy dimbali ndax li ñuy dimbali nit ñi dañuy européen et sourire nag ci anam bu mel noonu la ñuy doxee mooy naka la ñuy def pour mën a def mbégte tàbbal mbégte ci euh, xolu jaamu yàlla yi su fekkoon ne ñoom génn nañ àdduna teen bi continuer di fi jëriñ donte ne ay picc ñoo ciy naan yàlla daf leen koy bindal tiyaaba kon loolu moom mooy jubluwaay bi tax ñoom ñu def ci teen bi. Ah, yàlla dafa dogal nag euh, yëf yi ba mu tàmbalee ba fii mu yem nii ñun mbégteeg bànneex lañ ci àndan duñ ci sonn duñ ci tàyyi euh, yéen ñi di sant nañ leen ci taxaw bi ngeen ci taxaw. ndax wax dëgg yàlla taxaw ngeen ñu lool lool lool lool ne leen wóor daal ñi koy jëf nañ xam ne seenu ñaq dem na man su su wax dëgg sama xol may na ma tey ñiy jëf lii su ma sañoon bokk ci ñoom kon ñiy jëf lii war na ñoo xam ne ñi ngi def loo xam ne ku ko maa def naxante bi daal ak rawante bi fii la ndox lu ne mas na ko defal doomu aadama waaye ndox moom mooy priorité ci doomu aadama ndax man daanaa yónni xale yi fii ñuy dem ay cinq kilomètres waaye nag wax dëgg yàlla ba comme lii tawféex la parce que bii bënn na neex na ci la ñuy naan ndox bi set na macha allah kon sant yàlla rek a ci war parce que ñun dañ daan am ay teen yoo xam ne dañuy jukki fee amul benn sécurité tey ñu ñëw nii defar ko ba karo ko euh, indi fi goj encore loolu xam nga ak sant na kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant kilifa yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla tamit seen pas-pas gën a dëgër ah seen société boobu yàlla na saa borom dogal mu jur yeneen ni société làmboo leneen wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm nañ leen ndax eh, ñi ngi fay suñu droit état lu dara fi bu fi seen dara lay seen bëgg defee dara mu état duguna fi ci kër amul amut kon buñu amé ñu melni yeen jël nun nak jox nañ leen loxo timit encore na ndox moy priorité ku la ko andil waccio nak yow sant nañ leen de gëreem nañ leen mom bu fi doon fanan di waxit deug du wésu ka kaddu ciant kon nak kilifa yi nga xana ñoko financer ba ci yeen ñi ci taxaw liggéey bi ma ngi ñaan yalla mu defal leen wër te defal leen katan ndax non li rek lañ doon ñaan gën am na ko sun xol sedd na guy yàlla ki mën a taxaw daal yàlla leen taxaw sàmm leen defa leen xéwal gu sax dàkk àddina ak àllaaxira yi leen baram tudd sun xol sedd na guy danaa defe na koo xam ne nag mënu maa wax man waaye nag sant nañ daal sant nañ bu baax waaw coono bi moom bii moom tegg na moom bi coono moom tegg ko na moom ñi ngi def gudd rek ak xéwal gu baawaan ak seen taxawaay yàgg sun xol sedd na guy ci ñoom ndax xam nañ ne lii ñu def moom du jëfi kuy tappale te yaatu na fu ko def ci réew mi kon moom sant rek sun xel sedd na guy daal ñu ngi sant. te xam ne moom coono yi ñu doon nekkoon yëpp teggi ngeen ko ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yàlla mi nga xam ne mooy defar yàlla na leen defar lu kawe seen njort ñun daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ñoo ngi seen ginnaaw rek comme li ko Cheikh Mbaye ak Soxna Anta Ñaan mi waxee rek ñoo ngi ci seen gannaaw rek waaw di leen ñaanal rek. ah. Nous sommes dafa dafa neex rek neex macha comme la guerre waaw seet wecc sell ba dee waaw ni Nous sommes ni mu sell na leen suñ Nous voilà aujourd'hui au niveau du village de Kermbaïsei, euh, qui est au niveau de la région de Louga. On est Alhamdulillah ici pour procéder à l'inauguration du puits qui est dénommé Fradi Saïd Rabia Zahra. Euh, le puits a été financé par l'association Open et Sourire. Alhamdulillah, donc Allah nous a accordé une eau abondante et douce, donc après presque euh, plus de 30 mètres de profondeur. Donc nous prions Allah d'agréer cette œuvre euh, et qu'il considère ça comme un sadaqatul jariya. Que ce puits-là continue ici à des années et des années, voire même des siècles, pour profiter et, euh, aux, villageois, Inch'Allah. Donc, barakallah fikum, salam alaikum.